asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw loolu ñu wéy ci seeni émission dundu saxaaba yi ñu ngi woon ci dundu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma gisoon nañ ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma yàlla may na ko xam bu leer loolu am na ay firndeel yi ko jàngale ci wax ay ndongam kii mel ni Mujaahid rahimahullah mu bokkoon ci ndongo yi mag ci Ibn Abbas moom nee na kaana Ibnu Abbasin ida fassara shay'a ra'ayta nuura nee na Ibn Abbas nekkoon na buy firi dara buy firi dara moo moo xam xadiis da ngay gis ak leer ci xam-xamam da ngay gis ak leer ci. firinam tax na moom Ibn Abbas leer bi nga xam ne yàlla mayoon na ko ci xam-xamam mus na tukki dem Makka di aji mu dajee fa ak Muawiya booba Muawiya amirul muminin la woon Muawiya tamit dafa aji si yàlla def ñoom ñaar ñu tase fa Muawiya mu amoon jotaay xam-xam boo xam ne dan na fa jàngale ci makka ibn abbas tamit mu am xalaqa mu am jotaay xam-xam boo xam ne ay ndongo ñu ngi fa doon toog di jàng waaye ñu ne boo méngale ñaari jotaay yi mu awiya ak jotaay ibn abbas en tant que ab saxaabi waaye du amir mu ne boo comparé ñaari jotaay yi da gis ne mboolo bi nga xam ne dan na teew ci jotaay ibnu abbas moo ëpp fuuf mbooloo bi nga xam ne dan na teew jotaay muawiya loolu li ko waral mooy leer bi nga xam ne amoon na ko ci xam-xamam moo tax kenn ci taabiin nee na ibnu dafa ñëw ci benn aj mu xutba mu ne mu ubbi suuratu nuur suuratun anzalnaaha wa faradnaaha ba mu jeex mu tàmbalee di firi ay laayam tari saar wi di firi ay aayam mu ne mu am benn paa bu dëkkoon ci Makka mu dégg Ibn Abbas muy tari suratu nuur di ko firi mu ne maa raaytu kalaaman yaxruju min rasi rajulin mu ne wallahi wax ji ma dégg nii ci Ibn Abbas musuma dégg wax ji mel nii musuma dégg nit muy wax façon wax ji mu ne xamoon naa ne waxam ji turki buñ ko déggoon donte ñoom ay yéeféer lañu waaye ñoom bu ñu dégloo woon Ibn Abbas kon dinañ doon tuub dugg ci lislaam mu ne law samiathu turk la aslamat kon loolu beneen firndeel la buy wane ne moom Ibn Abbas yàlla mayoon na ko leer ci xam-xamam ibn abbas radiallahu anhuma yàlla defaloon na ko xol boo xam ne xol muñ la daan na muñ lu bari bari bari moo tax ak ni nga déggee ibn abbas ci darajam ci xam-xam ak loolu yépp am na ñuy ko doon xeeb allahu akbar nit moom doo mun a nekk boroom xam-xam ba ñépp sopp la loolu munta nekk walla nekk jaamukat yàlla ba ñépp bëgg la kenn du la bañ loolu mënta nekk abadan ñu ne benn waaye dafa saaga ibn abbas radiallahu anhuma daf ko saaga ibn abbas mu ne ko yow de yaa ngi may saaga waaye man de maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax am naa ñaari jikko yoo xam ne walla ñetti jikko yoo xam ne sante naa ko sama boroom mu ne ko man inni la aati ala al aaya min azza wa jal fa la wadidtu anna jamia annaasi yaalamuuna maa minha nee sama jikko bu njëkk jinga nga xam ne maa koy sante sama borom mune man léeg-léeg damay nekk di tari alqur'an ma ñëw ci ab laaya ci alqur'an waaye damay mébétu ne aka neexoon xam-xam bi ma am ci aaya bi déggin bi ma am ci laaya bi damay mébétu ak a neexoon julliti yépp am ci xam-xam boobu macha allah loolu yéen a ju rafet la mu ne ñaareel bi inni la asmau bilxakami min xukkaami almuslimin yaadilu fi xukmi fa afrahu bihi wa laalli laa uqaadi ilayhi abada mu ne ñaareel bi man damay dégg ab attekat ci am réew walla ci am dëkk ci dëkk jullit yi ma dégg ne dëkk sàngam am na attekat bu maandu bu jub bu ko defee ma kontaan ci ma bég ci mu ne xëy na sax attekat boobu man Ibn Abbas duma ko soxla duma musa dem ci moom di attewu abadan waaye melokaan ak jikko yi rafet yi may dëgg ci moom day tax ma bég di kontaan loolu mooy ñaareel jikko joo xam ne yàlla defal na ma ko mu ne ko ñetteel bi man damay dëgg na am na ab dëkk boo xam ne amoon na bekkoor waaye yàlla nàndal na ko yàlla nàndal na dëkk moomu bu ko defee nag ma bég ci kontaan ci mu ne yàlla xam na ne dëkk moomu sax même béy sax awma ko fa waaye nag ci yéenam bu rafet ak eh, yéenal jullit yi lim yéenal boppam loolu moo tax muy def loolu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo jàngale ne ne nit ki doo gëm yàlla abadan maanaam sa ngëm du mat abadan lu dul nga buggal say mbokk jullit li nga bëggal sa bopp laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu nafsi kon loolu wax dëgg yàlla teraanga la bu yàlla defal Ibn Abbas radiyallahu anhuma Ibn Abbas bu jàngalee ci dundam ne nit ki xam-xam dañ ko war a eh, saytu xam-xam yàlla bula la dénkee xam-xam war nga lu tamit nga boole ko ak jaamu yàlla moo tax Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay ndongam nettali nañ ci moom ci moom ñu ne Ibn Abbas mus na jóge Makka di dem Madina xam nga yu loolu yoon tukki la waaye ak loolu yëpp daan na naafila guddi muy naafila guddi di naafila léegi nag ñu ne dafa ñëw ci aaya bu nekk ci suratu qaaf wa jaat sakratu lmawti bilxaq الحق ذلك ما كنت منه تحيد Ibn Abbas di ko bamtu di ko di jooy di ko bamtu ñi àndoon ak moom yërëm ko ñu ne Ibn Abbas dan na naafila guddi di jooy dan na naafila guddi di tuur ba ci mujj gi ñaari lexam dafa amoon ñaari rëdd yi fa nekk ñaari rëdd yi ñuul yi nekkoon ci ñaari lexam ñu ne loolu jeexintel rongoñ la woon allahu akbar kon boroom xam-xam la woon waaye ku ragal yàlla la woon kon gis ngeen Ibn Abbas dafa boole xam-xam ak jaamu yàlla te yàlla subhaanahu wa taala nee na innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama yàlla ci ay jaamam ñooy borom xam-xami kon ibn abbas radiallahu anhu bokkoon na ci borom xam yooyu ibn abbas nii dundee dundam ba yàlla subhaanahu wa taala moom ko ci atam juróom benn fukk ak juróom ñett 68 ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la ibnu abbas génne àdduna ci barab bu tudd ak taif booba ibnu abbas mu ngi am juróom-ñaari fukki at ak benn juróom-ñaari ñu rob ko foofu bokk na ci ñi ko wàccee ci bàmmeelam ali ibn abdillah ibn abbas ak muhammad ibn hanafiya ak al abbas ibn muhammad ibn abd ibn abdillah ibn ak sofwaan ak kurayb ak said ibn jubair ñii yëpp nañ ci ñi nga xam ne dañoo wàccee ibn abbas ci xabram yàlla na ko yàlla gërëm ibn abbas mboolo bu tàkku fekkee nañ robam mboolo bu tàkku fekkee nañ rob rob ibn abbas radiallahu anhu ñu ne ci booba jamono maanaam jamono ji nga xam nañu ñu ngi ko doon rob ñoo gis ab picc picc boo xam ne kenn xamul fan la jóge picc bi picc bu yéeme la woon waaye gis nañ picc bi ñëw dugg ci bant bi nga xam ne ci lañ tëral woon Ibn Abbas waaw mu ne gis nañ ko muy dugg ci ron càngaay bi waaye kenn gisu ko muy génn ci ci càngaay bi gis nañ ko muy dugg waaye gisuñ ko muy génn gannaaw loolu nag biñ ko robee ba pare ñu dégg kii tariñ laaya bi ne yaa ayyatuha nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati dégg nañ kii tari laaya bi waaye gisuñ nit xamuñ kan moo ko doon tari waaye am na ku tari aaya bi moom ne yow bakkan bu tedd bi yow bàkkan bu dal bi yow bàkkan bi nga xam ne am nga macha allah ak dal mu ne dellool ci sa borom dellool ci sa borom booba yaa ngi am ngërëmaande dellool ci sa borom booba sa borom gërëm na la dellool ci sa borom nga dugg ci jaamu yàlla baaxi baax dellool ci sa borom nga dugg ci aljannay borom bi dëgg nañ kii tari aaya bi waaye xamuñ nag kan la gisuñ ko kon loolu mandarga bu rafet la karaama la maanaam karaama la xar baax la boo xam ne yàlla defal na ko eh, Ibn Abbas radiyallahu anhu ci njalbende génnam ci àdduna wala ci njalbende demam ci alaxira kon Ibn Abbas radiyallahu anhuma yàlla defal na ko teraanga joo xam ne lépp ay leçon la yàlla may na ko dund boo xam ne dund bu fees dell ak leçon la leson yooyu nag bari na jullit war na jëriñoo ci leçon yooyu ndax boo gisee ñu wax xayaatu saxaaba nekkul ne dañuy nettali ay histoire rek yem ca déedéet waaye dañ ci war a jël ay njàngat jël ci ay leçon Ibn Abbas dafa jàngale ci dundam ne nit lépp lay jàng ci alquran ak ci sunna danga ko war a dégg ci déggin bu rafet déggin bu jub déggin boo xam ne du la indil cànkute ndax boo gisee xawaarij ñi nga xam ne dañoo murtad dañoo fippu génn ci mboolo Ali soo gisee ñooñu fippu déggin bu jàng moo leen indil loolu ndax Ibn Abbas bi mu leen ñoowalee eh, ci la xam ne ñii dëgg la jàng nañ alquran karim jàng nañ sunna tamit waaye ni ko déggee moo jàng moo wéredi moo tax ñu am problème boobu Ibn Abbas nag radiyallahu anhuma bi mu leen ñowale def leen jubbanteel ak déggin boo xam ne déggin bu jub la boo xam ne dafay méngoo ak jubluwaay yàlla ak jubluwaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag lu am solo nga dégg aaya comprendre ko compréhension boo xam ne dafay dépôt ak maqaasidu sharia ak jubluwaay sharia moo tax benn boroom xam-xam bu tudd Ash-Shaatibi nee na mu ne ñàkk a xam jubluwaay sharia ñàkk a xam jubluwaay sharia xam-xam bu tudd maqaasidu sharia mu ne ñàkk xam ko di topp ay njortu walla di jàpp lenn ci sharia di bàyyi yeneen yi mu ne yooyu li koy indil doomu aadama mooy ak réer ak ñàkk xam te bu ko defee nag nga dugg ci loo xam ne danger lay doon ci yow kon Ibn Abbas dafa jàngale ne nit war na dégg alquran karim ak sunna ci déggin bu rafet ñaaral bi Ibn Abbas jàngale na ci dundam ne jullit war na xër ci bennal jullit yi boole leen bañ a Ibn Abbas jàngale na ko ci dundam alxirsu ala wahdati almuslimin wa jamaatihim loolu moom Ibn Abbas taxaw na ko ci dundam comme nim ko defee ci diggante Ali ibn Abi Talib ak alxawaarij waaye nag mu jàngale na tamit bennoo jullit yi boole leen ci benn mbooloo loolu mënta nekk lu dul ñu jaar ci yoon woo xam ne mooy yoon yoonu bennoo bi bennoo bi dafa am yoon bu dee bugg nañ bennoo faw ñu jaar ci yoon wi wa illaa duñ ko mën a am abadan Ibn Abbas dafa jàngale ne benn jullit yi fu ñu ko war a jaarale mooy ci alquran ak ci sunna ci alquran ak ci sunna ci naka gis nga ibn abbas bi mu ci xawaarij di jéema jéem jubale ak ali ibn abi talib pour ñu delloo ci mboolu ali lan la ibn abbas wax def la dafa ne araaytum in qara'tu alaykum min kitaabillahi almuhkam wa haddathtukum min sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam maa laa tunkiruun ba mu kon mu ne leen ndax yéen su ma leen xabaare ci alquraanul karim waxtaan leen temen ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay sunna yu wér ay sunna yoo xam ne kenn mënu ko weddi ndax su booba da ne delloo gannaaw ànd ali ñu ne ko waawaw kon Ibn Abbas naka la problème bi def ko régler ak Alqur'an ak ci sunna Alqur'an ak ci sunna kon mu jàngale foofu ne Alqur'an ak sunna ñaar yooyu mooy yoonu bennoo bu dee bugg nañ bennoo al waxda loolu faw ñu jaarale ko ci yoon Alqur'an ak sunna waaye ñii jàpp ci lii ñee jàpp ci lee ba pare ñu bugg jubale leen ñu bëgg ñu ànd loolu Ibn Abbas ni mu ci dundam dégg ko ci jàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bennoo buñ ko taxawee ci lu dul alquran ak sunna bennoo boobu du mën a taxaw abadan du mën a antu kon loolu Ibn Abbas jàngale na ko ci dundam Ibn Abbas jàngale na ne ne nit ki booy delloo ci alquran naam alquran ak sunna mooy sunu référence mooy sunu marje mooy sunu tegtal dëgg la waaye nag alquran ak sunna moomu tamit faw nga dégg ko déggin bu rafet dëggin boo xam ne dafay déppoo ak li ci yàlla jublu ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jublu ci waxam tamit ndax nit ki mu dégg alquran wala sunna ci déggin boo xam ne déggin bu jàng la dina ko indil problème Ibn Abbas bu jàngalee na tamit ne nit ki waroo jàpp ci benn aaya wala benn hadith di ko def sa dalil di ci attewoo di atte ci nit ñi déedéet jàpp ci benn aaya kese wala ci benn hadith kese jàpp ne loolu mooy xam-xam di atte di attewoo ci loolu déedéet waaye dafa am loolu mun na nekk ci yenn buntu yi waaye dafa am ay buntu yu bari ci sharia yoo xam ne dafay laaj nit ki mu dajale ay texte yu bëri pour mu xam loo xam ne dëgg la ci masala bi gis nga xawaarij boo gisee xawaarij yi ñu fipp ndax ñooñu dañoo jàpp ci benn aaya rek inil xukmu illa lillah bi ñu waxee ne nañ àtteewoo ci alquran jamaatu muawiya mu muawiya proposé loolu ali radiyallahu anhu ci ak ay mboolam léegi nag ñuy fipp ñu ne inil hukmu illa lillah ñu ne yàlla dong moo yore àtte bi waaw loolu aa la inil hukmu illa lillah léegi nag xawaarij dañoo jàpp ci aaya boobu di jàpp na li ali def noonu du yoon li ali def noonu du yoon ndax dañoo d'accord ne Abu Moussa euh, ci côté Ali ñooñu ak euh, ci côté Muawiya ñooñu ñu ànd di tëral ay accord boo xam ne ñëppaa ci ànd kon dafa mel ni atte bi dañ ko bàyyi ci loxo ay nit moo tax xawaarij ji ñu ne déedéet inil xukmu illa lillah ñu ne yàlla moomam atte bi kon lu tax ñu attewoo ay nit ci mbirum yàlla waaw naam inil xukmu illa lillah waaye nag ibnu abbas daf leen xamal ne mbir mi du noona jàpp ci benn aya kese wala benn hadis kese déedéet du noonu waaye nag mbir mi da ngay boole ay texte ay aaya moo tax ibnu abbas bi mu leen ñëwalee def leen xamal ne mbir mi du noona waaye dafa am yoon woo xam ne ci lañ war a jaar dafa am yoon woo xam ne ay texte yoo xam ne ay aaya yoo xam ne war nañ koo càmbar war nañ ko seetanteel bu baax a baax bu ko defee ñu am génn kaay ci problème bi moo tax Ibn Abbas convaincre na lu toll vingt mille ci xawaarij yi xam nga xawaare yi vingt quatre mille lañ woon ñaar fukki junne ak ñeent waaye Ibn Abbas bi mu leen ñëwalee waxtaan ak ñoom ci dëggin bu rafet ci alquran ak ci sunna ci la. yàlla defal ko tawfiq ba mu convaincre lu tollu vingt vingt mille jullit yoo xam ne ñooñu dañoo fipp woon waaye ñoom yépp dañoo delluwaat gannaaw ànd ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma wala anhum jamian kon Ibn Abbas radiyallahu anhu wala anhuma jàngale na loolu ci dundam waaye mu jàngale na tamit ne nit mu munuñ koo xam noonu maanaam ci jaamu yàlla bu muy jaamu yàlla kese waaye war nañu xool pas-pasam ndax pas-pas bi jub na walla déet ndax bari na nit muy jaamu yàlla fekke pas-pasam jubul gisoo ji yi ji ñooñu ñi nga xam ne dañoo fipp woon ñooñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tudd seeni jaamu yàlla mu ne kenn ci yéen boo méngalee sa julli ak julli xawaarij yi dangay ngay xeeb sa julli boo mengalee sa njàng alquran ak seen i njàng da ngay xeeb sa njàng alquran waaye ak loolu yépp mu ne mbooloo boobu dinañ fipp di génn ci diine bi kon loolu li ko waral mooy pas-pas bu jubadi pas-pas bu jubadi kon bu ko defee nag Ibn Abbas mu ñëwal leen bi mu leen gisee mu ne ay nit lañ yoo xam ne macha allah leer lislaam mu ngi ci seen kar xanam da gis ne ñii ñu ngi jaamu yàlla waaye pas-pas bi jubul pas-pas bi jubul moo tax seen pas-pas bu jubadi boobu tax naa ñi nga xam ne dañoo continuer ci pas-pas boobu ñoom ñoo mujj rey Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abdurahman bin Muljim mii rey Ali ibn Abi Talib xaariji la kon te mu ngi doon julli waaye lan moo ko indi loolu pas-pas bu jubadi kon nit maanaam valeur mu ci pas-pasam pas-pas bi bu dem méngoo na ak alquran ak sunna pas-pas bi dafa teg ci alquran ak sunna kon boromam dina am jàmm boromam dina nekk koo xam ne ku jub lay doon ñaan yàlla yàlla may ñu pas bu jub Ibn Abbas jàngale na ci dundam ne nit ak noo xat xat xat war nga góorgóorlu ci julli mbooloo gis nga Ibn Abbas ba muy dem ci xawaarij ji ngir waxtaan ak ñoom dafa wax ali radiyallahu anhu ne abrid an issalaa mu ne yow ali maa ngi lay ñaan maa ngi dem nii ci xawaarij yi di waxtaan ak ñoom waaye maa ngi lay ñaan benn mbir mooy nga yeexee julli bi tuuti julli tisbaar la woon nga yeexee ko ba mu xaw a sedd ndax ma mën a fekkee ma mën a teew julli mboolo kon Ibn Abbas dafa doon dem ci mission boo xam ne mission l'islam la mission la boo xam ne santaane lislaam la mooy jubale ay jullit waaye nag ak loolu yépp dafa def ay effort def ay jéego ndax julli mbooloo bañ a raw ko waaw kon kii wax ne maa ngi doon ci recherche ci benn masala walla ñu ngi woon conférence wala ñu ngi woon ci jotaay xam-xam wala ñu ngi woon ci salle kalaas moo tax waxtu julli raw ñu walla moo tax ñu julli mbooloo raw ñu loolu du lay loolu du lay naam kon jullit war na góor góor lu mu teew julli mbooloo Ibn Abbas jàngale na ci dundam ne yow mi sakku xam-xam bul xeeb sa bopp jàngale na ci dundam ne kuy sàkku xam-xam warul xeeb boppam ndax lan bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génnee àdduna moom Ibn Abbas moo nettali mu ne amoon naa benn xarit daan naa ko wax ne diw ñëwal ñu dem ci magum saxaaba yi mag yaa ngi fii nañ dem ci mag ñooñu jàng ci ñoom ndax bis mun na ñëw nit ñi soxla suñu xam-xam kon njàng jàngi ci mag ñi bu ko defee xaritam boobu mu ne ko yow da ngay nax sa bopp yow la kan. ba umma bi soxla sa xam-xam waaye yàlla def nag Ibn Abbas mu bàyyi ko moom mu continuer di jàngi ci mag ñi di dajale ay hadis di ci sonn di ci sonn waaw waaye ba yàlla def nag macha allah mu am xam-xam bu tàkku xam-xam bu barke xaritam mi xam ne daan na xeeb boppam xaritam mi nga xam ne daan na ko wax ne. yow dangay nax sa bopp ndax umma bi duñ dem ba soxla sa xam-xam xaritam boobu toll nañ ci jamono daan na bu gisee Ibn Abbas ak ay ndongam yu bari gis ay mboolo di ko topp di ko laaj di sàkku ci moom xam-xam bu ko defee mu nekk wallahi haada al fata kaana azka minni daan na wax ne mu ne wallahi xale bi moo ma gënoon muus xale bi moo ma gën a muus macha allah kon xeeb sa bopp loolu pexe la ci pexe seytaan en tant que maanaam nit yàlla may la xel waroo xeeb sa bopp donte xale nga donte ndaw nga gis nga Ibn Abbas yàlla may na ko xam-xam ci jamono ju teel ba daan na ubbi ci masaayil yoo xam ne mag ñi waxu munuñ ci wax dara Ibn Mas'ud radiyallahu anhu daan na wax ne mu ne bu leen ma laaj benn fekk Ibn Abbas a ngi fii mu ne fekk Ibn Abbas mu ngi fii kon bu leen mën laaj benn masala te Ibn Mas'ud moo mag Ibn Ibn Abbas kon loolu ndax Ibn Abbas dafa profité ci jamono ndawam kon jamonoy ndaw jamono sakku xam-xam la waaye xeeb sa bopp nag loolu pexe la ci pexe seytaan pexe la ci pexe seytaan yoo xam ne daf la koy àndil ngir garankoor la ci xam-xam kon. bu ko defee nag nga xam ne muy Ibn Abbas walla keneen ci mag ñi kii mel ni alimaam Malik teel na am xam-xam alimaam Malik tàmbalee na di jàngalee xam-xam ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam booba mu ngi am 17 ans macha allah 17 ans commencé di jàngale xam-xam alimaamu Shafii teel na am xam-xam. avant ñooñu ñeneen ci saxaaba yi teel nañ am xam-xam kon jamonoy ndaw ndaw walla xale warul fooye boppam war na xam ne étape la boo xam ne étape bu am solo la ci sa dund ndax problème yi barigul amagoo ay gàllankoor yi bari kon bu ko defee nga góor góorlu ci xam-xam amaat na yàlla subhanahu wa taala mu defal la tawfiq kon mbokk yi wax dëgg yàlla dund Ibn Abbas kenn ku ne mun na ci jëriñoo ci ay anam yu bari ki bugg a góorgóorlu ci jaamu yàlla mun na jëriñoo ci dund Ibn Abbas ki bugg a góorgóorlu ci sàkku xam-xam mun na jëriñoo ci dund Ibn Abbas waaye ki nga xam ne bëgg na jëriñoo tamit ci wàllu jubale ay nit kooku mun na jëriñoo ci xam-xam Ibn Abbas mbooloo en tant que mbooloo mun nañ jëriñoo ci xam-xam Ibn Abbas établissement société état ñépp mun nañ njëriñoo ci dund Ibn Abbas radiyallahu anhuma kon ñu ñaan yàlla yàlla may ñu dégg ak topp ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq te barkel ñu ci liñ fi jot a jàngale ci dundu abdullah ibn abbas radiallahu anhuma eh, ñu sant ñëpp sant auditeurs yi ak auditrices yi sant sunu technicien al oustaz Fafa Cissé di leen jox dig daje insha allah ci beneen émission ak dundu keneen ci saxaaba yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi Fafa TV.